mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun euh, télévision Futur Média alxamis ju ne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi seen émission li ci penc mi boobaak léegi rek di wéy di jël meloog élection yeeg waajal gi fan fanweeri fan ci weeru sulet 2017 palak député ci Sénégal euh, waral waxtaan wi tey jii ñu ànd ak ku mel ni euh, colonel Moumar Gueye bu kuréel ak taalifkat bindikat yi Sénégal yëglu nañu démb ñoom ci wàllu jàmm ji nu bëggal réew li ko waral di lu ñu mu yoot ci mbedd yi ne ay nataal jaasi fital fu moo waral ñu woo ko ngir waxtaane pàcc boobu boobee ndax bala nga ne naam ne fa ca it li nga xamante ne mooy réew mi xëccoo gi euh, bu nu fa fekkul dara ëllëg euh, waxuma la assemblée nationale waaye daañu tal leneen euh, colonel Momar Gueye ñu ngi lay ziar rafetlu teewaay maa ngi lay sant bu baax El Hadj di rafetlu jotaay bile ndax ni nga ko yàgg waxee man dama la yàgg sant di la gërëm di la ñaanal jàmm ak xéewal ndax fu ñu la fekk say kàddu kàddu yuy defar la kàddu yuy yeete la kàddu yoo xam ne yile foo ko fu mu jibee rek dana am njëriñ ci askan wi kon loolu moo tax ma am mbégte bu baax a baax a baax ñëw fii fekkee waxtaan wi li jërëjëf Guèye euh, soxna euh, Diarra Cissé bu Manko taxawu Sénégal moom it mu ngi ci plateau bi soxna jaar ñu ngi lay ziar. ñu lay fay El Hadj Assane di rafetlu émission bi di la jaajëfal tamit ci invitation bi. jërëjëf nuyu sénégalais yëpp di nuyu rawatina téléspectateur bu Télé Futurs Médias. jërëjëf honorable député soxna Ndeye Fatou Diop bu Benno Bokk Yaakaar moom it bokk ci suñuy invité tey euh, honorable ñu ngi lay ziar. delloo ziar El Hadj Assane euh, ñu ngi nuyu sénégalais yëpp di wu ñi nga xamante ne yàlla def na euh, ñu loru woon ci stade ba Diop. Mhm. di ñaan yàlla dëkk bi jàmm am fi. jàmm wutu ko di la ñaanal. comme li ma wax sànq rek euh, nit koo xam ne defar rek moo ko tax a jóg. defe naa ne bu fekkente ne woon na la ci plateau la war rek mooy nga wuy ji ko. pour ñu bokk ñun ñëpp harmoniser Sénégal jëm ci kanam. jërëjëf merci beaucoup. merci ak man suma naataango El Hadj Ba analyste politique Hadj Barka maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar Hadj di nuyu ñu toog ci plateau bi ba pare di jaale euh, tiis euh, bu dal waa Sénégal bi ñu ñu lorlu ñu loru ci mbir mi. Mhm. seen famille. Eh, yàlla leen yàlla yërëm xare leen te eh, yàlla na yàlla taas eh, taas ñu seen barke. ek ñu ci jële gaañu gaañoo ñu yàlla na ko yàlla woyofal. amiin yàlla ñibbi seen famille. très bien euh, poñ ñi tey bokk na ci jàmm ji nga xam moom la ñu ubbee ndax violence bi nu gisagum ci campagne bi waaye euh, élection yi carte yi ñu ci war a demee nees man def ba yëgoo am ci ñu waxtaanee ko ci ak dal ndax am na ñuy jàmbat ne gisagunuy carte ba njort jib ci euh, am na amul lu ci mën di am am réew dañ koy waxtaanee bu ko defee ñu xool ban formule la ñu ciy demee joué ndax it dina bokk ci li yokk confiance confiance mooy dàq lépp loo xamante ni mooy contestation wala fitna ci ci ay élection ni koy dundee ci fenn fi Afrique jombul kenn euh, nañ ci gën a rek euh, def suñuy loxo ci wàllu woowee ba kóolute gi ëpp ci mbir yi bu ko defee ñu am assemblée beneen ak liñ ci yaakaar ngir askanu Sénégal mon colonel violence bi nuñ ko waxee réew mi quand même am na ay kilifa bu buñ fi gisee yenn taxawaay ba ci ay nataal su tey foog naa ni état am na kàttanu ku ca ci ñoom mu jëli ko mu indi leeral ci doxalin wu ni mel yor lan mooy ndeyam ci bëccëgu nar yor fital Ah, di door ca kaw et cetera ci yow bokkoo ci force de l'ordre amuloo vraiment benn légitimité ci fànn woowee euh, lan moo tere kilifa yi àddu ci. waaw Alaaji Assane xam nga li tax ma toog file mooy dama bokk ci kuréelu association des écrivains du Sénégal. ba pare nekk président du PEN Sénégal PEN mooy euh, association boo xam ni day dajale poètes yi essayistes nouvellistes. Mm. Euh, te dafa am sunu président Aline Badara Bey lu mu wax. dafa ni la malheur d'un peuple commence par le silence de ses écrivains dafa ni musiba ci am réew mu ngi tàmbalee bu ñi nga xam ni ñooy taalifkat yi ak bindkat yi bu ñu tëjee seen gémmiñu noppi donte ñoom ñoo ko bëggal seen bopp wala dañ leen a forcer ngir ñu tëj seen gémmiñ kon foofu la musiba di amee kon nun lépp loo xam ne lii dafa war a defar réew mi dafa war a defar askan wi nun war nañ ci wax mhm. moo tax fan yii yëpp am na ay kàddu yu jib di wax ak askan wi xam xamal leen ni euh, nun ay doomu aadama lañu te boo ko jàngee ci téere diine yi dañ naan la doomu aadama mooy xalifatullahi fil ard hmm. mooy moo fi taxawal yàlla ci kaw suuf waaye boo demee ba gis seen jikko di nga ni xëy na ñii hmm. mérité wuñu garaat boobu leen seen seen seen borom jox hmm. ndax man dama nekk un spécialiste de la faune maanaam lépp loo xam ne lii euh, nu rabu àll di di doxalee àddinaam hmm. dama ko jàng te boo xoolee dafa mel na ñoom ñu gën a mën a doxal seen àddina nun hmm. Alaaji ndax mës nga gis group bu nag yu hmm. jógee Dagana ni dañuy xeexee group bu nag <laughs> yu nekk Rosso <laughs> ndax mës nga gis fas wu rey weneen fas ndax mës nga gis xar mu rey meneen xar doo ko gis maanaam bu ñu bokkee xeet du ñu reyante bu ñu reyantee rek fekk na dafa am loo xam ni moom la ñu seq maanaam xëccoo suuf wala xëccoo jigéen te bu ki ki ku ci nekk bu amee la mu bëgg rek coow la jeex kenn ka day daw coow la jeex mais doo gis mukk ñu reyante doomu aadama ngay gis mu yore jaas yi fekk moroom ku mel na moom mu ni ko teg ket rendi te du ko lekk du ko defee dara lu dul rey ba rek la ciy jublu. kon dafa mel na nun war na nañu seetaat suñu bopp. seetaat suñu bopp te itam ñi nga xam ni yaakaar nañ ni bu nu waxee nit ñi déglu leen. Mm-hmm. war ñi di yëkkati seen kàddu. surtout ça di fàttali askan wi ni ah ak lu suñu bëgg bëgg bëgg tar tar nun réew mi moomuñu ko. Uh-huh. ndax dañu ko doonoon ci suñuy maam. ba pare nag war koo jébbal ñi nga xam ni ñooy suñuy rak suñuy uh-huh. doom. Uh-huh. suñuy ak suñuy sët. kon ku nekk war na wax li am problème bi mooy lan mooy léegi kilifa yi sax bëggatuñu wax ndax boo waxee rek daa gis koo xam ni day làqu fenn doo xam ndeyam doo xam baayam mu wax la wax ju ñaaw wala mu jël la nga wax teggi ko teg fee melloo ko neneen noo xam ne lii yow taxu la woon jóg mhm. waaye nag nun du nu bàyyi di wax mhm. yéen journalistes yi ngeen di wax kilifa yi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi mhm. rawatina président de la république mën na di génne kàddu sànq ci Diamniadio wax na fa ci wàllu xale yi doon tricher ak enseignants yi doon tricher wax yu daw yaram la fa wax mhm. te loolu noonu mu waxee wax ju rafet jooju. Mhm. la war a waxe ci ñii di génn ci mbedd mi di yore ay jaas di yore ay kuur mhm. di dóorante di saagante jërëjëf Guèye euh, soxna Diarra lan moo ci yéen seen wàll lu ñu mën a xaar ci yéen acteur politique euh, ngir jàmm donte nag kenn wootu woowul kenn ci passivité aussi c'est-à-dire que réew bu ñu ca nekkee da ngeen am seeni droit yéen en tant que acteur politique war ko sàkku ci ñi nga xam ne ñooy organisation élection yi pour waxtaan wi leer faaw ngeen laaj ko mais laajin wi nees mën a def ba vraiment lépp daal di jaar ci ci ci fair waaw merci El Hadj Assane euh, je pense que comme ni nga ko waxee coow waroon na mën a bañ a am donc lu ñuy ñaawlu la lu ñuy naqarlu la. Mhm. Euh, bu fekkee ni dañu jëm élection ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon am nañ 5 ans yu ñu fi def bu ñu mhm. ñëwee taxaw ne ah man kat def naa fi 5 ans lii laa fi def ak lii ak lii ma bëggoon nga joxaat ma yeneen 5 ans pour ma defaraatal la lii ak lii. ñi nga xam ne ñooy ut amaguñu ñoom it dañuy ñëw taxaw ne kii kat mu fi def baaxul. wala baax na waaye bëgg naa def lu ko gën lii ak lii laa bëgg defaral la kon dama bëggoon nga voteel ma kon waroon na mun a yomb. Mhm. mais dañuy interroger un peu l'histoire depuis kañ la violence yi commencé mi ngi commencé ci deuxième semaine u campagne bi déroulé nañ une première semaine amul benn violence ku nekk a ngi dox say soxla ku nekk a ngi campagne donc bi ñu ñëwee ba ci deuxième semaine bi ci la ñu remarqué xëy na am ñu ngi yegg renseignements généraux yi xam nañ li nga xamante ne moom mooy xew ci euh, terrain bi ak yooyu ci lañu mel ni comme daal dafa am benn volte face affaire bi jékki-jékki rek kii dóor na ki diw kii attaqué na kii fii ak yooyu kon dañu xool fan la problème bi nekk ñan ñooy attaqué waate police tamit mu def seen liggéey parce que amul caravane bu romb te police nekkul ci ginnaawam ñoom xam nañ li xew ñi ngi seetaan kon acteurs yi nañ leen jàpp. Mm-hmm. Euh, fi moom mooy. Euh, gis xoolal euh, ñaata xale ñooy topp caravane ñaata xale ñooy xëy 8 heures ci suba ba 21 heures wala 22 topp caravane yi dañ leen fay ñii par conviction la ñuy mais loolu lépp li ko waral mooy xale yi liggéeyuñu. donc bul xool rek li nga xamante ni moo xew nii mais nañu xool li ko undu xale yi nañ leen utal liggéey. xale yi nañu fexe ñuy occupé ku ci doon xëy suba teel dem liggéey bala ngaa wàcc 16 heures 18 heures di nga tal leneen lu dul naan da ngay xeex. Ah. kon je pense que le mal est plus profond que li nga xamante ne moom la ñuy gis. ci kaw superficie bi. Euh, da nga foog ni ñoom gars yi dañoo def seen i natt sondage wala ñu joti xibaar leen wan ne yëf yi daan nar a këpp seen boor noonu nga gisee waaw parce bu ma koy xool damay waxee fi nga xam ne foofu laa dëkkee ki nga xam ne moo fa représenté nguur gi buy def campagne nit ñi bu ñëwee ba jub si leen ak spécimen dañ koy ne baax na kon ñu am gis ko ci presse beeg yëpp relayé waat nañ ko mi ngi ci presse en ligne bi. Euh, dem nañ caravane taseek moom rue 17 angle 22 parce que Medina laa dëkk man ak sama tête de liste ñoo bokk commune. Mhm. bi ñu ñëwee ba taseek moom rue 17 angle 22 Bamba dafa yéeg si kaw camion sono bi. woote à la sérénité ñun ñëpp ñoo bokk Medina. Mhm. kon ñaaw na ñu voté le 30 juillet kii di seeti diw hôpital kii di jaale ji diw kon nañ ko rafetal Seydou duggee sama frère la yéen ñii ñoo bokk Medina kon na rafet dañ leen dépassé matul 50 mètres xeer yi taw suñu kaw mhm. kon. moom mënul campagne parce que fu mu dem nit ñi dàq ko mu ne kon man comme campagne ma keneen du fi campagne ñun noonu lañ ko gisee. très bien merci euh, soxna Ndeye Fatou benn bokk yaakaar euh, fare ak président Sall lan lañ mun a xaar d' abord ci moom président ci wàllu taxawaay gi ak it yéen acteurs yi naka ngeen ci mën a béyee seen waar daal ba ñu jëm ci élection yi ci jàmm. Assane damay wax ne violence baaxul ci fenn. Mhm. baaxul ci kër baaxul ci mbedd baaxul ci dëkk. Mhm. te nag nañu respecter population yi respect bi mooy du ñun kese ñoo fi nekk booy calculer tey les politiques mhm. les apolitiques ñoo leen ëpp te ku nekk ngi toog sa kër mhm. yor sa carte ma yaakaar ne dagaan baatu askan wi warul mën a jar doom aadama yi di rayante mhm. di dóorante jaasi parce que arme ba mooy sa carte électeur te defe naa ne nit ki bu jëlee carte électeur am ba bës ba jot mu dem def la muy defi ji warul mën a yomb. soxna maam Jaara wax na ko léegi dañu demoon cinq ans yi jeex ñuy laajaat ku ci nekk bu amee argument bi ngay laaje mhm. kiy laaj yor ay argument defe naa ne violence waru ci mën a am quant nag phase ban ban mooy sànni ak ban camp moo dul sànni. la cay dëgg ak yoon mooy dafa war a man a ne ci kaw ñu jox population yi cër. Mm-hmm. man foofu laay waxee. Mm-hmm. parce que tey ci tey. naa lan ngay dénk sa moroom yi nga xam ne ñoom ñooy engagé booy yi ñoom ñooy fay euh, ces gros bras la et di leen defal journée nangam. man sama gars yi nga wax de. non no euh, c'est-à-dire sa moromu politique yi maanaam fu ñu mën a fare. Ah, voilà loolu laa doon laajte <laughs> parce que tey <laughs> man je suis sur le terrain. <laughs> te génnewu ma dërëm. kon soo li war politique bi mhm. mooy am approche ci population yi mhm. tey boo amee approche ci population yi yow doo kuy génn ci population yi di laajte quoi que ce soit population yi yéenay ànd li ngeen di ànd ngeen ànd ko di ko def mhm. parce que tey ku mel ni man man je me dis ni démb euh, le ministre Mame sama commune la ñëw defe naa ne ku déglu revue de presse tey di nga ko dégg bi ma demee ba jub ko dama wàcc Mame Mbaye wàcc ñu dem ku nekk accolade sa morom ñu dem parce que loolu mooy jàmm. loolu mooy salaam. tey xale ku ci gaañu rek sa morom dina ko dem seeti. Mhm. la preuve mooy li am stade. ci football la mais bi mu amee dañu décréter. 48 hmm. heures de deuil. kon lépp ci suñu biir la lépp dañ ko war a rafetoo ci suñu biir. très bien jërëjëf Hadj Barke ci wàllu njàngat lan moo waral violence bi ñàkkum argument la wala débat bi la gars yi daal jaar à côté lan moo xew. bon pour revenir ci lan mooy cause violence bi dafa dina xaw a jafe ñu tënk ko ci émission bu hmm. mel nii. parce que hmm. pour man violence bi dafa dafa bëri ay facteur dafa bëri ay ay ay causes benn bu ci njëkk mooy euh, ñàkk prévention. ak ñàkk anticipation parce que su ñu jëlee cause yëpp ne lii ak lii moo ko tax wala ki ban première responsabilité toujours mhm. dans une république ci nguur gi laa koy teg parce que yaa ay nit yu ñu tànn mhm. pour ñu assurer suñu sécurité donte mën nañu am sañ-sañ ñu far ci benn parti politique le le premier responsable dans un pays c'est le président de la république ak le ministre de l'intérieur pour ce qui concerne notre sécurité mhm. ay nit lañ ñu jël leen ñu tànn leen di leen fay suñuy lempo leen fay lu ñuy wax xaalisu contribuable bi ñoom ñoo war a su lajj amee fenn wala ñu euh, ñu gis euh, ay manquement ci ñoom la état wu Sénégal état bu solide la war na mën a assurer kaaraange donte cent pour cent amul fenn même ci dëkk yu ñu ëpp doole ëpp ñu euh, mën-mën waaye état wu Sénégal am na sañ-sañ juguler genre phénomène yu mel nii xam lu tax moo la ko soo seetlee euh, seetloo ci temps yu passé dafa am benn fait bu important bu mu sa am mooy bu ñu agressé si la mhm. dóor ko dóor dóor ko ay marto pour pourtant nguur gi fi nekkoon ay élément am la ñu identifié woon wala la ñu suspecté woon mhm. ñu ne ñoom ñoo ñoom ñoo agressé Talla Sylla waaye gendarme yu ñu joxoon affaire bi maa ngi rappelé wu à l'époque Mokhtar Sow commandant la woon mhm. léegi je pense colonel la moom moo nekkoon section de recherche mais ñoom ñëpp da la jàpp te ay jegeñaale président la la jël mu enquête leen euh, nar def leen garde à vue mhm. ay kilifa yu bëri bokkoon nañ ci loolu la ñu xaar ci ci état fu mu toll nii nii xamuñu man mënu ma wax ne état bi euh, ñan ñoo ñan ñooy auteur violence yi mais état bi war na mën pour rassurer ñëpp ñaari boor yëpp mhm. comme procureur keroog nu mu génnee Euh, waruñu xaar ba moom ay drame ay huit morts état moo war a jël ay dispositions fu ñu déggee violence. comme fu mu amee keroog euh, Grand Yoff dafa war am arrestation. dafa war am interpellation. Mhm. rien que pour wane la présence de de l' état. te gis nga euh, man banlieue laa dëkk foofu laa juddoo foofu laa màggee man dama daan Sénégal dañu nekk ci ci bombe à retardement. Euh, malheureusement heureusement ou malheureusement campagne yi épiphénomène la rek parce que benn période la pour deux semaines ou trois semaines mu am ay débordement ñu gis ci violence yi mais violence buy buy xaar Sénégal bomba retardement bu fi nekk gën na garaaw loolu Assane euh, su dee xam nga configuration yëmbal euh, caaro yi ginnaaw raay jàmm gën Sicap Mbao jëm côté Pikine bi xoolal su fekkee phénomène lamb am na mooy li ñuy waxee banlieue bi sumul. Mhm. ñu képp kuy banlieusard war nga xam luy sumul parce que su fekkee yenn euh, combat lutte yi am na ñun ñëpp ci euh, fitna la ñu nekk. Mhm. da ngay gis ay des milliers de jeunes daal di jóge stade di agressé commencé stade dem ba jóg fëgg. dem mhm. ba jàmm gën wala ba Sicap Mbao ba feneen ak feneen di agressé. ay ay jeunes yoo xam ne euh, Tivaouane Lamsar dóor nañ fa gémi nangu pistolet. jël un représentant de l'ordre ñu dóor ko nangu pistolem daw ak moom. Mhm. loolu su commencé am ci état da da ngay tiit parce que ñun nag dañuy dañuy yàlla def na nit pour suñu liggéey dañuy tukki dañuy dañuy voyager gis nañ ni phénomène yu mel noonu su su ko état bi anticipé wul. Euh, fii ñaata yoon ngay dugg biir Dakar pourtant Dakar dafa ndaw presque ça représente pourcentage bu ndaw ci ci territoire bi mais pour nga gis ay patrouille police yombul dans les grands dans les grands nga dem Liberté 6 dem baa dem fële mm. léegi sax avec le phénomène du terrorisme lañ commencé di daal di gis ñuy posté ay agents un peu partout gendarmerie ak ak police ñuy def mm. surveillance discrète mais pour man euh, violence lu koy lu koy njëkk indi loolu mooy tax mu xuus un rek ci affaire stade bi jàpp naa ne man kaaraange bu mot su amoon ci stade bi jour boobu noonu. donte ñu ngi wax affaire infrastructure yi que def nañu defoon nañu rapport. Mm-hmm. mais gos yi soo gisee ñu ñemee chargé. avec autant de violence et de et de barbarie. Mm-hmm. ba indee musiba boobu mel ni c'est parce que dañoo sentir na que dispositif bi dafa yorom. et mënuma gëm ne. Mm-hmm. état aussi organisé ko l' du Sénégal match bi même ñu nekkul ay experts xam affaire phénomène u derby xam ñaari équipe yi problème bu amoon seen diggante que l' état n' est pas pu anticiper. dafa kaaraange bu mat sëkk le procureur monsieur le procureur de la République il a fait une sortie intéressante pour wax ci mais pour man loolu ça ne dédouane pas la police. police war nañ xool inspection générale de la police mu def rapport. xool est-ce que effectivement on avait analysé le risque. état am na renseignement. <laughs> je a y' a de choses. Mm-hmm. yu mun expliquer violence bi. Mm-hmm. mais pour bañ a guddal wax ji. Mm-hmm. premier responsable suñu kaaraange. c' est l' état. très bien maintenant bu ñu xoolee ni yëf yi tëddee mon colonel est ce que gàttandu ko gënul parce que déjà bu njaaxum amee euh, dañ naan yëf yi matul wala boog demuñ ba jeex wala ak parando et cetera kon kay ñu moytu ko moo gën ñu li ñu gën moo li ñu li ñu jig mooy ñu gàttandu ko et là daf may permettre ma dugg ci mbiri carte électeur yi. coow bari na déjà ci loolu xam nañ dafa nar a juri contestation. Mm. pourquoi mënuñ ci taxaw léegi waxtaan ci xool benn formule. waaw euh, dama bëggoon rek am lu ma yokk tuuti ci wàllu état bi ñu wax xam nga lu xew léegi ñu ni état bi te bu police intervenir mu am musiba mu ci am dafay mel ni àddina tukki na. Mm-hmm. te euh, police pour doole lay lay lay lay defee liggéeyam. léegi bu nit bu nit deewee biir police police yàqu na yaxet bu deewee ci biir oto police yàqu na yaxeet alors que nit dana dee ci car rapide dana dee ci mbedd mi dana dee ci bus dana dee ci feneen mu mel ni policier yi léegi li nga xam ni moo leen di téye mooy lu nu def lu leen ca dal lu mu tuuti tuuti seen carrière yàqu loolu dana tax ñu ci bare du ñu am fitu di dugg ci lu demee noonu loolu rek laa bëggoon préciser. Mhm. nit ñi nag ñoo war a am yar ak teggin parce que état bi mënul nekk ci mbedd mi di yar nit ñi. Mhm. te Sénégal gi dafa manqué yar. li nga xam ni moom laa ci teg mooy sunu réew mi dafa soxla askan wu am yar ak teggin un peuple discipliné on n'a pas besoin police forte. on a besoin d'une d'une d'une d'une d'un peuple discipliné. pour ñëw ci affaire u carte euh, yi war a demee coow li bari na et je pense que il faut kilifa yi jël les devants quand même. waaw de façon très concrète parce que Sénégal aussi dañuy bàyyi ba jaan ji romb ñuy dóor ci watat yi rek. gis nga gis nga carte yi dem naa fañ koy liggéeyee. Mm-hmm. ndax loolu tam danaa ci di yëngatu. dem naa fañ koy liggéeyee. dem naa ba ca machine yi nekk ministère de l'intérieur duñu tëdd duñu nelaw. Mm-hmm. lu ne ñi ngi koy def ngir ku nekk jot sa carte man xam naa loolu. Mhm. te ña fay liggéeyee xam nañu loolu. li ci am solo mooy sénégalais lu ëpp ci yu demee nii day bàyyi ba ca ndaw ja mhm. ñëpp fëlxoo ñëw ku nekk bëgg jot sa kart te loolu tam wax dëgg yàlla du nekk loo xam ni luy yomb la. waaye gis ngeen. mais sur le plan il faut reconnaître que am na ay sooxe. parce que je pense que di jaabante yi nit ñi def. sa carte génnee Dagana Podor nga dëkk Dakar et yooyu am na ci. gis gis c'est des faits qui sont euh, yoo xam dañu ci war a indi rectificatif yi war. ñi ngi ci man man de li ma gis maa ko constaté sama bopp kenn nettaliwu maa gis ni yokk nañu commission yi. Mhm. fexe nañu aussi boo fa demee sa carte foofu lay nekk. ndax bu njëkk da nga daan dem feneen. jël sa carte soog a dem fi nga xam ni fi ngay wote man li ma gis mooy ñi ngiy def lu ñu mën. Mmh. mbir mu jafe la nag. parce que am na jamono joo xam ni am na machine bu fa yàqu bu fa bu fa paanoon. Mm-hmm. ay fan machine bi paan te loolu day gën a tardé liggéey bi. Mm-hmm. waaye li ma jàpp mooy du la arrivé nga ne mais pourquoi bàyyi ba élection yi ne kët na jot na sax ñu ne dañuy changé ay carte d'identité. alors que amoon na est que boobu urgence. waaw waaw xëy na xëy na bëggoon def lu baax rek yaakaaroon ni technologie bi dana suivre waaye affaire machine yéen xam ngeen ko. Mm-hmm. da jékki-jékki <laughs> <laughs> <laughs> loolu rek moo ci nekk waaye mm. man yaakaaruma ni mm. yaa yaakaar naa ni ñi nga xam ni ñoo nekk à la direction de l'automatisation du fichier wala ñu nekk ministère de l'intérieur mm-hmm. ci suñu kër yi lañ jógee suñu ay mbokk lañu mm-hmm. suñu ay xarit lañu amuñu benn intérêt di def loo xam ne lii day yee fitna ci réew mi uh-huh. kon man jàpp naa ni xëy na am na ay njuumte ci mm-hmm. départ ba waaye bu nit ñi ànd ak dal macha allah yaakaar naa ni ku nekk di nga am di nga jot li nga xam ne moom nga bëgg a am àndale ci sport passion bi muy àndal ak politique gi moo tax communication yi baax mm. euh, bu ñu nee carte yi yeex na c'est pas que dañ leen di interpeller mm. parce que ñoom ñu baal ma ci waxin wi euh, PC wunu dara mm. bu dee juróom wala fukki agent wu euh, daafo la feneen bu ñu ko méngalee 14 millions sénégalais que nous mm-hmm. dañuy wax suñu avenir ak suñu jàmmi réew mm-hmm. c'est pas personnalisé mm-hmm. naka la def ba carte yi génn confiance bi yokk ci élection yi ñu génn ci ak jàmm <laughs> mais duñ ci génn. naka la ñuy def yéen lan ngeen taxawee Benno euh, Manko Taxawu Sénégal pour que quartier yi génn est-ce que yéen ci waxtaan ak militants yi di leen ñaax ñu dem jëli ko ñoom it. bon euh, pour quartier yi liñ ci mën a wax euh, bari na bariwul liñ ci gis mooy. Mhm. cuune ñàkk organisation. Mhm. ñàkk vision. ñàkk compétence ak tâtonnement bu am ci biir nguur gi. Mhm. parce que président Macky Sall ñu ngi ko fal en 2012. ñëpp sénégalais yëpp xam nañ ne 2006 la carte d'identité numérique yi ñëw Sénégal bi ñu defee 2006 la plupart 80 pour cent population bi on peut dire ñi ngi woon ak carte d'identité numérique 2006 ku nekk xam na ni carte yi c'est valable 10 ans 2006 ba 2010. Mhm. moom xamoon na ne bu jaaroon yoon. bu euh, yàbbiwul woon sexaat 2017 élection présidentielle waroon na am bu loolu tegoo côté pour élection législative moom taxawoon na. donc sénégalais yi même bu dul élection 80 pour cent seeni carte d'identité waroon na expirer en 2006 2016 plutôt muy 10 ans yi hmm. kon ne serait-ce que pour ça waroon na fekk nit ñu yore seeni carte ñu dem ñu ne 31 décembre la carte yi di jeex 31 décembre ñu ne puusaat nañ ko ba fin mars fin mars ñu puusaat ba 30 juin 30 juin ñu puusaat ba 30 septembre nii lañ koy xel di pousser ba keroog ñuy nit ñi di jot seen kii mooy wane ñàkk compétence wu ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk ñun suñu destinée. parce que euh, je pas comprendre nga ne nit ñi dañuy jël euh, ba date temps date boobu jot nga jël dolliwaat ci encore loolu yëpp day indi ñàkk mën a gérer li nga xamante ne moom lañ la dénk. carte mm-hmm. yi bu ñu waree génn ñu war a liggéey ak commission yi. commission yi ñi ko yore peut-être boo demee fu nekk mais am na maire maire bi dina ci bokk ñu boole ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy acteur yi nekk sur place donc ñoom ñëpp dinañ am benn rôle boo xam ne ak proximité bu ñu am ak population dinañ leen mën a sensibiliser pour ñu dem euh, inscrire ji dinañ leen mën a sensibiliser aussi pour dem jëli seen carte yi mhm. gëmuma ni sénégalais yi laxisme am na ci côté boobu nit ñaa ngi xëy di dem di jëli seen carte yi boo demee Iba Mar Diop fay fekk plus de 500 personnes par jour carte yi moo fa nekkul ñoom ci seen bopp la wax fan la carte yi nekk nekk donc bu fekkee ni que comme ni nga ko waxee ay dañu kii naan kii la arrangé wala kii la arrangé man gëmuma lool parce que ki nga xam ne moom ngay jox carte bi xamoo ku muy voteel mhm. mën nga ñëw ne kii laa dëkkal kat ne ko voteel donc nga ni rétention amul man gëmuma ni dañu téye carte yi parce que dañ ko bañ jox nit ñi dañu mënul dañoo engagé loo xam te ne nii mënuñu ko. Mhm. jël ay milliards yi milliards jël ko jox ko ay ndit marché gré à gré te ay professionnels ñi ngi fi senegal dëkk ko ay kàngam la ñi am xam-xam ñi ngi fi. Mhm. donc 2006 ñi ko fi defoon ñi ngi fi mën nañu ça s'est bien passé pourquoi mënoo dem joxaat leen marché bi mhm. mais déedéet man ñëw naa sama ay nit ñu ngi fi il faut ma neexal leen il faut ma jox diw wàllam ak yooyu diw moom ak financé woon sama campagne ak yooyu loolu la ñu war a arrêté. ñu ut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut nit ñi mën nañ leen jox ñu doxal te bàyyi mbirum neexalante beeg yooyu loolu moo indi yi yëpp. très bien euh, ci ci wàll woowu yi ak euh, li nga xamante ne mooy yeexaay bi ci ñenn ñi di jàmbat. man li may njëkkee damay wax ci sécurité bi. Mhm. tey Sénégal dafa toll foo xam ne foog ñu delluwaat ci kër yi yaraat njaboot mhm. parce que violence bi yëpp ci njaboot ji la. dañuy wax éducation à la base. loolu moom moo manqué. Mhm. bu fekkee ñu ñun ñëpp conscient nañ ko ni loolu dafa manqué tey war nañu ñaaxaat suñu bopp yaraat njaboot gi balaa police di leen yar mm-hmm. loolu mooy waru garu jur ak doomam parce que boo gisee violence daawul am mm-hmm. jur yi dañ doon yar seeni njaboot ca ba ñu nekkee xale bu ndaw booy xool geste yu bari yu mel noonu sax fi ñu toll nii dafa raar ci ci ci ci ci population yi mm-hmm. beneen bi ci topp damay wax ne le président Macky Sall bu ñu fàtte ne dafa yor programme dem ak moom sénégalais yi ñoo ko fal à cinq pour cent ci programme bu mu leen présenté woon euh, beneen bi ci des ñu jëm ci mbirum carte yi. Mm-hmm. li may wax rek la réponse mooy que ni nous répondons par des actes tey ci tey. Mm-hmm. bi ñuy dem coow li bëri woon na yépp ñu ne mën na am du ñu yegg ci à 4 4 millions d'élect du ñu mën a. inscrire 4 millions. Mm-hmm. yàlla def on a inscrit six millions et quelque de cartes d'électeurs mhm. ñu ne cartes yi duñ ko joxe certes parce que nit ki mënoo ne dama nekk ci dara lépp moo baax y avait des problèmes problème yi mooy carte yi génnandoowul woon damay dem di jëli sama carte ñu fekk sama carte génnul kii ñëw fekk carte am génn nañ ko nangu mhm. parce que tey loo gis euh, ci ci àdduna mhm. mënoo ne damay xëy tëba tëb lépp baax mais ñëpp xam nañ ne ñu ngi koy liggéey ñu ngi koy def ni ñu ko war a defee fii ñu toll nii génn nañ 83 pour cent ci carte électeurs yi ñi nga xam ne nag demoon nañ fekkum ñu fa seen carte na leen jaral ñu xëy jëli ko ñu ne voie boobu dafa xat nit ñaa ngi naa ñu ngi def lépp ma yaakaar ne tey su fekkente ne ku nekk à partir de samedi dañ leen di orienter ku nekk. ci bureau. bi ngay voté jee ma yaakaar ne dese nañu presque dix jours. ci campagne ci ci avant les élections suñ ko defee dans les normes. la indi woon 4 millions yi ñu ñëw ba 6 million hmm. dina indi tey d'ici la semaine prochaine di nga dem di si benn centre pour récupérer sa carte électeur hmm. doo fa fekk ñaari nit yu mat. Ah, pour ñu jël seen carte maa ngi liir sànq ne président dàqul xalaatu xaw na ndax dëgg la parce que léegi ak réseaux sociaux yi doo xam lan moo ci officiel ak yooyu. Hmm. dàqul xalaatu ñu voté ak ay récépissé wala jibagul seen biir làng yéen déggagu leen ko. xam nga boo naan da nga am benn production boo xam ne moom nga def. inscrire nga 6 millions et Euh, objectif bi c'était quatre millions tey yow produire nga trois pour cent des cartes. Mhm. kon cartes yi disponible na. kon lan moo waral tey. buñ ci jotul kay moo tax ñuy wax. moom laa la wax ne dama ne la. Mhm. ñàkk cee jot amul. problème amoon na pour ñu récupérer carte électeurs yi parce que centre de vote centre de récupération yi ñu tegoon. xatoon na. ñu décentraliser ko. Mhm. léegi au lieu kon ngay dem fu mel ni sama commune benn. centre moo fa amoon bu ñuy récupérer carte d'identité yi hmm. léegi tey suba boo fa demee samedi y'a sept centre yoo xam ne ku fa dem récupérer sa carte ah. carte électeur kon damaa yaakaar ne euh, fi ñu toll nii hmm. xel nangu ko hmm. xel nangu ko que ni ñu voté par récépissé xaw ma fu mu jógee mais munoo produire ñu jox la cent pour cent de production nga livré 83 yi wax ji mooy na sénégalais yi jóg jëli ji seeni carte électeur naam amoon na benn faay bu ndaw nangu nañ ko mooy dafa xatoon ci centre de vote yi mhm. mais décentraliser nañ ko mhm. ku ci bëgg a voter nga dem jëli ko naam nag te euh, ñu bëgg a téye carte électeur yi mhm. ndax wóoluwuñu dañu bëgg a jël carte électeur yi parce que dañu ragal sondage dama ne dem ca làmb ja di bàkku jóge ca làmb ja di bàkku ko gën te ku nekk yaa ngi ak sa arme bu ñu yeggee ca guerre ku war a mën a gañe rek dinañ la ne yow yaa gañe guerre bi kon defe naa jaru xuloo jaru xeex. incha allah barka ngir kon euh, ni ko waxee jongante ba lépp jaar ci yoon euh, kenn bañ a jógee ca làmb ja gàddu saw sàkket yu baale. Mm. Euh, nees mun dem ci sur le plan organisationnel ba ak dal am ñu néewal bu baax contestation yi ndax carte yi ca la n'est-ce pas ak yeneen ak yeneen. bon moom la ñuy ñaan et puis xam nga démocratie Sénégal démocratie bu dem ba def ñaari alternance ci Afrique. Mm. mu nekk royukaay. suñ demee ba ay problème mu carte nar a faussé bi wala mu indi contentieux électoral dafay hmm. dafay doy waar dafay mel ni dañ dellu ginnaaw parce que lu indi woon fitna ci réew mi pendant des années contentieux électoral la ay élection 88 ay élection euh, balaa boobu ñu góor góor lu ba am la code consensuel daal di dem indi ay onel et cetera. Hmm. donc opposition bi soo defee résumé bu ndaw ak nguur gi yàgg nañu. Euh, guerre guerre entre guillemets wala xeex. Mhm. pour que ñu am ay élections yu yu loolu yàlla dimbali ñu ñu soox soox soox ba am ñaari alternance cest dire que nguur daal di organiser élection yu perte ko waratuñu woon nekk euh, affaire carte. di ñu di ñu tardel. et lii aussi euh, dañ ci war a suñu génnewee toute considération politicienne. war nañu def auditer xool lan moo tax. mbir mi sooxe. est-ce que jëluñu engagement boo xam ne au départ on voulait bien faire parce que euh, état bi lu mu ci jublu woon. lu baax la. Mhm. daal di defaraat fichier bi daal di defar une pièce euh, numérisée directive CEDEAO la. boo xam ne moom moo ko. digle woon ay ay membres am. Mhm. mais est-ce que anam yu ñu ko defee wala délai yu ñu ko songee est-ce que ils Euh, évaluer toutes les possibles kii difficultés yu ci yu ci nekk. Mhm. d' abord xoolal tey euh, même su fekkoon carte yi disponible nañ ci fu leen war a jëlee am na yeneen réalité yu am ci Sénégal par rapport au calendrier. Mhm. suñu mbokk yu nekk ci biir àll bi tey am na ñoo xam ne seen tool yi lañ tal. am na ñu nga xam ne mënuñu dem retirer seen carte wala bëgguñu ko dem retirer. ñeneen ñu sant Diallo mhm. wala kan sama genre yi. mën mhm. nañoo xaar toujours ba au dernier moment ne dañ la ñuy doog a dem retirer seen carte. ñeneen yi dañu dem ñu enrôlé wu ci benn endroit daal dem euh, ci benn endroit ne foofu la ñu enrôlé wu. mais mënuñu retirer seen carte dakaar wala fu leen fu leen gën a jege. ñii nekk ay enseignants daal et cetera y' a y' a beaucoup de problèmes yoo xam ne. Mhm. en amont nag su euh, état bi. Euh, diisoo woon na ci nu mu ci war a diisoo ak opposition bi. Mm-hmm. loolu moo tax toujours diisoo baax. doon nañ trouver consensus. Mm-hmm. avec la classe politique. parce que foofu ku ci ne da nga sa wàll cest dire que moo yombul ah, état bi bu ñu bu ñu wootee ñu ne ñëwun dañ parce que généralement généralement ku nekk da ngoy ci li nga ngoy ku ah. nekk daal di politiser affaire bi. alors que généralement ñu lu ñu doon permettre ñu dépasser loolu c'est la société civile. wala mu am ñeneen ñu nga xam ne ay acteurs la ñu jox médiation parce que Sénégal démocratie bu majeure la. waroon nañ mun dépasser ay ay problème mu carte. xam imaginel tey carte yi bañ a génn. ba ci jour élection yi taux de participation bi néew. te loolu ñu ngi koy euh, nemmeeku d'élection en élection te loolu aussi violence la man j'appelle ça une violence symbolique. suñ demee ba le grand le plus grand nombre. gisuñu seen bopp ci ay élections ñuy am phénomène de mooy daal di toog ne ah homme politique yi ñoom ñëpp a yem. Hmm. Euh, man jaraluma may may voté alors que vote nu mu fondamentalé. am na état yoo xam ne sax. Euh, <laughs> c'est obligatoire. Mm-hmm. soo votewul dafa am ay daan ñu lay teg. Mm-hmm. ñun ñu dem ba le plus grand nombre soit amatul confiance ci politique bi wala ci fiabilité fichier bi. Mm-hmm. dellu ginnaaw la. oui ah. très bien ah. merci Barka. ñu ñëw ci poñ beneen euh, mon colonel muy wàllu assemblée bi nag parce que coow li coow li euh, ay assemblée jaar nañ fii gars yi ni ñu takkoon nii ku ne ak na ngay waxee ñu fi génn ne na ñoom liggéey nañu gars yi ñoo nekkul en interne xam nañ doon daj. am ñu ne noonu législature bi nga xam ni bu ci gën a tële la donc il faut vraiment ñu indi changement yi ci war ban parlement ban ci meneen nga gisal Sénégal. waaw xam nga li ma nemmeeku mooy ñi fi jël parole ñëpp li ñu wax dëgg la ndax ku ci ne dafa am loo xam ni sa yelleef la nga bëgg sàmmonte ak moom ba jot ko. moom la soxna si wax moom la eh, honorable député wax barka ci diggante boobu la la la wax waaye man. bu fekkee dama waxal li nga xam ni mooy écrivain bi ma doon mooy damay ñaax ñépp mm-hmm. ñu ànd ak dal. gis nga Sénégal bu amoon coupe du monde de la parole Sénégal a koy gàddu. <laughs> lu xew Sénégal wax koor ñu wax wari ñu wax tabaski ñu wax lu xew coow li ni nii ci biir dëkk bi te lu ci ba bare ñi ciy wax. xamuñu sax li ñuy wax ndax sunu borom wax nañu ko de nee na ci nit ñi ñi ëpp ci nit ñi xamuñu ñi ëpp ci nit ñi gëmuñu mhm. ñi ëpp ci nit ñi duñu sant seen borom walakin akthara annaasi laa yuminuun walakin akthara annaasi laa yaalamuun walakin ak akthara annaasi laa yashkuruun mhm. ñoo gën a bari ci nit ñi ma bëggoon ñëpp delloo ci seen xel ak métit lu mu lu mu mën a metti metti metti soo ko mu muñee rek mhm. yàlla indi la xéewal man loolu laa jàpp loolu laay wax ñëpp nag. donte nangu naa itam ku ci ne. Mhm. sa droit. ñu jox la ko loolu mm. lu wér la te loolu ñi nga xam ne ñoo ko war a toppatoo ñoo ko war a yore mm. maintenant ñu wax nga ci ignorance bi ñu bari xamunu mais dañ leen war a xamal waaw parce que yi réew mi mm. la ñuy defaree lépp lu mu doon nepp marché moom la ñuy engagé tous ces travaux dañu war a xamal nit ñi dëgg la xam nga xam nga loolu euh, euh, daanaka lu lu lu war ñëpp la moo tax ñun ñu toog fi mm-hmm. ñun toogaluñu fi benn parti wala keneen dañu toog ngir réew mi mm-hmm. lépp loo xam ne lii yaakaar nañ bu ñu ko waxee dana delloo ci xel yi ñu wax ko. pour dellu si dellu si ci sa wa wax ci wàllu. assemblée beneen bi man fekke naa liggéeyu assemblée ndax dama nekkoon ci gouvernement bi di liggéey. dama daan fekke commission technique dama daan fekke commission des finances dama daan fekke plénière waaye liggéey bu metti la liggéey bu metti la te ku ko fekkee di nga xam ni dinañu di daawoon nañ di liggéey ba ay deux heures du matin. su commission technique amee. Mm-hmm. wala commission des finance wala mu am plénière loolu gis naa ko. Mm-hmm. leneen li ci tegu mooy gox bu ne ku fa nekk député man am na ay député yu ma xam lu fa xew moom la ñuy dem wooy mm-hmm. moom la ñuy ñaan. ordonnance moom la ñuy ñaa àbb oto moom la ñuy gis nga lu lu leen yàlla jox ci affaire mm-hmm. assemblée bi mm-hmm. danañu ko séddale nit ñi loolu am na dama bëggoon itam am na ci nag xëy na ñoo xam ni mm-hmm. ah, wàccoowuñu ak askan wi ci liggéey bi ñu war a def ndax ñoom kenn warul nekk ni man maay député Gossas wala maay député Ndar da nga nekk député du Sénégal ak ñi jàpp ne amuñu liberté boobee vis-à-vis de l'exécutif maanaam am nañu gis ne këyit yi daf leen tënkee noo xam ni quand même euh, lay jóge ca palais ba ëpp doole la jóge ci ñoom ah euh, man de euh, amuma ci jàngat bu mel noonu ndax dama jàpp ni député mhm. nekkalu fi gouvernement bi nekkalu fi président de la république mën na am nag mu jóge ñu bokk parti waaye bu président defee loo xam ni sax du noonu wala mu juum dañ ko ko war a wax. nun par exemple association des écrivains lépp loo xam ne lii gis nañ ko ci réew mi mu ñu xam ni lii kat day indi musiba wala day indi ay fitna. danañu def mémorandum. publier ko ci presse bi wala ñu yénnee ko président de la république. Mm. ñun loolu mooy suñu suñu liggéey. Mm-hmm. kon euh, li ma bëgg xam ak nu mu mën a demee. réew mi nañu jiital réew mi uh-huh. nañu xam ni réew mi nu noo ko moom noo ko bokk uh-huh. te ak lu mu metti metti léeg-léeg nga nga nekk ci mbedd mi sànq doon nga nettali ku ñëw gaare ci sa ci sa ci sa kanamu oto uh-huh. bu doon ñenn ñi dangay gis ñu fët fëti di xuloo di saaga waaye danga toog xaar waa ji ba mu ñëw mu dem yoonam xeex mënoon na fa am mm-hmm. xuloo mënoon na fa am amu fa nee naa la waa jooju ba àddina di tukki dootoo ko gisati mm-hmm. kon boo fa nekkee di xuloo moom danga ngay yàq rek. man daal li ma jàpp mooy. Mhm. nañu jiital réew mi. dëgg la réew mi moo am solo. Mhm. bu ñu ko jiitalee lépp dana dox. très bien man gis nga ah. man bu ma doon bu ma doon ma jeexal bu ma doon bu ma doon bu ma doon bu ma bokkoon ci parti politique. Mhm. may def par exemple visite visite de de damay dem palais ni ni ni président damay ñëw def visite de proximité pour nga woteel ma <laughs> mais mais euh, xëy na pour exagérer la mais. war na mën a nekk bu ko defee président jël. daañu la waa baax na jërëjëf au revoir. la. bu hmm. bu wote jotee mu wote ku ko neex. Hmm. loolu. li li mais farandoo yàlla ci dul bàyyi dañ naan daa indaale ay xon. <laughs> ñu dem ci téléphone <laughs> yi xam nga. <laughs> Euh, ñu jël kenn ci euh, téléspectateurs yi asalaamaaleykum. salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi yow la kan. Euh, Thiès laay woote. noo tudd. waa maa ngi tudd Saliou Diallo. bisimilah Diallo. Ah, ba baal ñu nga fay télévision bi nga wax ci téléphone bi. allo euh, génn naa ci nekk bi. da wax waaw ak téléphone bi. waaw léegi euh, man de euh, le colonel su mm-hmm. dëgg-dëgg mu ma soñoon Sénégal yëpp déglu ko. Mm-hmm. ndaxte vraiment li mu fi wax nii. Mm-hmm. ku ko déglu doxalee noonu. jàmm salaam rek mooy am ci élection yi. dëgg la parce que Sénégal su dëgg-dëgg benn bopp la. waruñu ko taal. dëgg la. jaru ko. boo ko taalee après bu fi bu bu bu réew mi tàkkee hmm. fooy defaat élection. loo fiy fekk dëgg la yaru ko. Hmm. man ci carte bu ma la siy wax man man ñi ñu yoom wax damay def ko jël sama carte dugal ci internet kàppel xam nga am na ci bu ñu euh, euh, dugg ba double kii ba hmm. dugg ci dugal sama numéro ñox ma ñox ma sama bureau de vote kii fi nga koy jël ji ma dem foofu wallaahi jël sama carte. Ah yomb na am na numéro bu ñu joxe tamit. li am na doxi naa keneen mu def ko li wax yokk ko ni ngay def ba jël si kan ñoom jëli ko Sénégalais ku nekk bu ñu dalee. Mhm. topp instruction yi nga xam ne joxe nañ ko wallahi ku nekk na jël sa carte si jaamati taw du am. incha allah jërëjëf. jërëjëf managal nag. waaye bëgg nit ñi kilifa diine yi wax opposition bi franchement. Mhm. man dama tiit tey jii ONG yi wane nañ li ñuy def pour woote boo wootee avec les caractéristiques bien que passé nañ ko ñu bañ bañ boobu moo ma tiital. ndaxte nit ñi ñëpp woote Sénégal maas bi yëpp woote mu am taux de participation moom moo gënoon ñëpp xam ne ay signaux yu opposition bi di joxe ma faruma pouvoir rek laa di ut jàmm taux yi ñu joxe daf ma tiital ma soñoon ñi ñëpp woo opposition ak pouvoir. ñu mhm. venir au cadre. Sénégal benn bopp la. Mhm. vraiment au lendemain du des élections ñëpp war a xëy liggéey nekk ci jàmm ok ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ni nga ko waxee euh, loolu mooy li gën euh, na ku ne suivre instruction yi ñu ñu ak soxna Diarra ci ci li nga xam xamante ni mooy assemblée bi ba ñu ñëwaat ci wax dëgg yàlla kart yi moom wax nañ ci liñ doon wax na gaa yi yokk yokk nañ commission yi euh, ci xibaar nan yokk communication bi aussi di indiquer nit te nit ñi ñoom it ndimbal la jay fekk loxo borom ñu dem ñoom it jëli carte yi proposé euh, ma tooñaale la yàgg euh, Bamba Fall bu weesoo rek libéré suñu xarit Khalifa Sall su weesoo libéré xalifa lan ngeen ñuy proposé pour assemblée beneen bon euh, xëy na mbirum xalifa sax beneen beneen <laughs> débat la. waaw donc euh, par rapport ak assemblée bi sànq da ko wax nga ne bokk na ci assemblée yi yées ci assemblée yi am. ci déedéet dama dama ko joxe dama ni am na ñu ne liggéey nanu am ñu ne bokk na ci. gën a matadi waaw waaw. Euh, <laughs> parce que nekk na assemblée boo xam ne ñun ci campagne bi daf ñu ñoom soxna Fatou dañoo mettil suñu liggéey ci campagne 2017 mm-hmm. bi. Uh-huh. ndax dañu waroon taxaw rek ne leen ñun Manko Taxawu Sénégal dañoo bëgg ngeen voteel ñu. pour ñu defal leen lii ak lii parce que lii lañ bëgg a indi assemblée mais dañu am double rôle léegi ci terrain bi parce que nit ñi ci boppam ñoo parewul pour voter ci koo wax mun la ah assemblée de moom du élection bu sérieuse parce que dañu désacraliser hmm. assemblée assemblée tey gëdd ak dayoo boo xamante ne nii justice am na ko wala hmm. exécutif am na ko boobu la waroon am parce que ñun suñu koppar suñu dém ak daqaar yu ñuy dajale yóbbu ko impôt moom la ñuy jël jox ko président de la république moom ak ñi nga xam ne moo leen tab parce que moom lañu ñu fal ñun ñi ci des moom moo leen tabb équipe am ñu donc ñoom bu ñu leen joxee suñu xaalis assemblée boobu mooy d'accord nañ leen leen di joxee dépense bi bu ñu paree moo leen di laaj nan lañ ko utiliser donc bu fekkee assemblée boobu tey président de la république moo fa ëpp kàddu askan wi nga xam ne ñoom moom lañu ñu war a rassembler euh, représenter day am problème euh, beneen affaire bi ñu ngi tey dem nañ ñoom pendant cinq ñu ngi leen di fay di jox oto di leen faj di leen def yeneen ak yeneen comme privilège benn proposition de loi lañ ñu voteel proposition de loi boobu muy proposition de loi bi nga xam ne bi assemblée des assemblées ba léegi amul bu ko yées muy wax ne que euh, képp ku am plus de dix députés moom moo doon def groupe parlementaire léegi dindi nañ ko yóbbu nañ ko ba quinze députés mhm. loolu mu ngi nasaxal démocratie Sénégal mu ngi delloo ginnaaw démocratie Sénégal te du loolu lañ doon xaar ci assemblée mhm. mu demaat ci même proposition de loi bi ñu ne que député bu jógee ci groupe parlementaire am mënul dellu ci dem ci beneen groupe parlementaire mhm. muy wane ni que tey boo nekkee ci groupe parlementaire na muy doxalee xëy na neexu la wala na muy doxee gisoo ni que lii njëriñu askan wi la. Mm-hmm. da nga fay toog mu lay neex mu lay naqari parce que mënoo fa génn ndax yow yoon bi mayatu la pour nga génn foofu nga dem feneen kon muy loo xam ne tamit mu ngi nasaxal démocratie. du loolu lañ leen fale woon mm-hmm. euh, bu am na yeneen projet de loi yi nga xam ne mooy jógee ci nguur gi di ñëw ci biir assemblée bi projet yooyu bëri na am na ci yoo xam ne baax na comme ay code minier ñen yeneen ak yeneen mais dañu sedd ne que lu ci bëri ci projet yooyu amul suivi amul évaluation amul encadrement tey boo jëlee loyer bi moom moo ci gën a euh, toucher population bi. Mm-hmm. parce que ñun ñëpp a tàcc woon dañu ne ah félicitation wàññil nañu loyer bi ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, loué donc bu fekkee dañ la wàññil loyer bi nga toog trois mois. ki la loué woon ne la génnal sama kër parce que dama ko soxla. Mhm. nga génn dem loué ji feneen mu dem loué sa morom yokk li nga xamante ne nii moom la ñu wàññi woon kon encadrement bi ci war a am amu ci. parce que tamit neexul nga jël sa kër yaa xam li nga jëndee sa terrain yaa xam li nga tabaxee nguur xëy benn jour rek toog pour neexal population wala pour neexal électeur ñëw ne la wàññi naa bi tant pour cent te waxtaanoo ñoom. Mhm. amul yow feneen foo xam ne fa nga koy fattalee loolu ko luyaas bi daan jëriñ. Mhm. xam nga loolu tamit day indi problème. loi sur le tabagisme. loi sur euh, taalibe yi jëlee nañ leen ci mbedd bi yóbbu leen jam ñaajo ñaari weer ñoom ñëpp ñëwaat nañu euh, OFNAC bi ñu ko jëlee ndaw si euh, directrice bi bu mu demee war a interroger Aliou Sall muy frère président de la République dañ ko dàq donc muy nekk lu yu bëri yoo xam da nga naan bi ban njariñ la ñu amal mhm. donc population yi ñoom foofu lañ toll ñun lan la ñuy doyee assemblée parce que assemblée président de la République ba ci temps de parole yi ñuy wax moom mooy toog biir bureau di wax ni que mooy wax cinq minutes diw mooy wax deux minutes bu fekkee Fatou waxal na yàlla xam na li may wax mhm. Euh, bu ñu jógee ci euh, loolu ku nekk dégg na bi mu defaree liste yi ba pare man maa defar liste yi te kenn ku ci am dissidence bu ci am ma dàq la léegi président la république bi nga xamante ne moom la député yi war a ñëw pour euh, xool ni muy doxalee ñoom ñuy am lu ñuy waxee redevabilité ngay am loo xam ne da nga naan ginnaaw yàlla yow. xam nga ku la abal bëtam nag fu la neex fu ko neex ngay xool. donc loolu lépp mu nekk loo xam ne dañ ko war a xeex ñi ñuy tab bëtam pour ñu dem représenter askan wi mbirum partie mooma yebal nañu xool li nga xam ne mooy li ñu woowee responsabilité. yow yaa dem sa sa sa jëmm mooy dem taxaw. tey même bu dee président de la république moo la tab li nga wax moo la fa sant bu ministre bi dee ñëw nan ko posé question sàngam ndax boobu maîtriser na ko loolu lépp yow xoolal sa sa sa diggante ak sa mm-hmm. askan bi nga xam ne ñoo la yebal foofu euh, ñoo la voté. Mm-hmm. donc ñun li ñu bëgg aussi muy comme parité ni mu amee. ñu ñu foofu waaw incha allah mm-hmm. parité bi ni mu amee muy avancé bu significative. ndax femmes yi tamit ñoo ëpp góor ñi. ci population bi kon rafet na rafetlu nañu que ñu ñëw di di xool nu muy tolloowee mhm. mais ndaw yi tey ñoo ëpp fuuf c'est plus de 60 pour cent population Sénégal ay jeunes lañu. Mhm. kon bëgg nañu euh, discrimination positive bi ñu am à travers la parité. Mhm. ñu am ko tam ci ndaw yi pour ndaw yi di gën a wu ci biir assemblée ñu ne liste bi par force dafa war a am 30 pour de jeunes par exemple. pour dans un premier temps. merci soxna Diarra dinaa jox kàddu gi soxna Ndeye Fatou ci kanam tuuti ñu jël ji moom wax Mané ci téléphone bi ñu ngi lay ziar waaw El ji Assane ñu ngi ziar. bisimilah. waaw donc dama bëgg a waxtaan ak euh, gars yi tuuti rek ci affaire comportement yi. comme ni mhm. ko colonel bi waxee. Mhm. ñu itam ci service boobu lañ nekk gendarmerie. Mhm. mais dama bëgg a wan nit ñi rek ne leen gendarmerie ak policiers yi ay sénégalais lañ. comme les sénégalais bu ñu leen jàppee ay ennemis bu ñu leen jàppee ay noon parce que toujours comme ni colonel bi wax. bu événement amee gendarme bi mbaa policier bi def ci erreur te nit ku nekk ci ngay liggéey ci ngay ci li ngay liggéey ngay def erreur donc buñ ci defee erreur nit ñi du ñu comprendre ne ñii liggéey bi dañ ciy def erreur dañ koy jël comme ay ennemis lañ amal affaire te comme li may wax ku jóg guddi ñu ne sàcc nga Euh, malheureusement ah rocceeku na euh, ji ma wax maane ñu koy gërëm xam naa dina dina ñëwaat ci kanam moom lu mu bëgg rek mooy rapport yi suñu digg ak takk der yi ñu vraiment bañ leen jàppee noonu ci ñun lañu soqi ko waaye man it même conseil bi laay jox takk der yi ñoom it nañ gën a ñimeewu bañ a raglu bu ko defee ñu dit ñu gën leen a ñooxu n'est-ce pas ñu xam ne yëf yi du du du vraiment ay contrainte soxna si par rapport à l'assemblée ak ñoom ni ñu ko gisee photographie bi ñu defal penc mi yow nga nekkoon fa seen législature jeex lan ngay indi ay leeral waaw bala bala may dem damay leeralal soxna jaara tuuti. Euh, parce que dégg naa mu ne président Macky Sall moo tabb ay ñoñam. pour leeral ko ne rek assemblée nationale ay élus ñoo fa nekk ay élus du peuple. Mhm. parce que ñooñu dañ leen présenté liste liste bi ñu leen présenté dooy population yi ñu teg leen assemblée nationale. Mhm. Euh, législature bi ñu nekk nii. Euh, dama gis ay député di génn di wax ne député yi législature bi xam nga ki bokk ci kër. Mhm. bu nee kër gi moo gën a bon ci kër yi ñëpp dañ naan waaw. Mhm. te ñun loolu moo nu dal waaye nag mu am lu am solo lu ci am. Mhm. dañuy wax ne projet de loi yi ñëw toujours dañuy dégg ñu ne euh, euh, majorité mécanique la ñu am xam nga lu tax ñuy wax loolu nit buñ la dénkee dara ci askan. da nga war a sàmmonteeg moom ba mu jeex. sàmmonteeg moom mooy lan. indil nañ la projet de loi ñun dañu dañu baaxoo saayu projet de loi ñëwee assemblée nationale dañuy jël acteurs yi nga xam ne ñoo tënk projet de loi bi ànd ak ñoom dem séminaire. ñu jëlee ko article bi njëkk ba ci mujj xamal leen ne kat. lii ak lii la lépp loo xam ne. du ci lu askan bi gis boppam ñu dindi ko ca ma yaakaar ne bu la nit ne lii laa bëgg a def nga dem ak moom waxtaan ne ko lii moo arrangé askan bi lii arrangé wul askan bi ba lépp féete côté defe naa ne pour loolu bu ñëwee jàll dafa yomb. Uh-huh. code de la presse bañ ñu ko tegalee gis ne am na la ca nekk dañ ko retourné waat pour ñu defaraat ko. Uh-huh. beneen bi ci topp député bi nga xamante ne commission technique dafa am jaaroo fa parce que commission technique fa la ñuy waxee budget yi lan moo ci ne dindil fii village bi kat am na temps de. électrifié wuñu ko ñii ñoo ko gën a yelloo foofu la débat bi di am day am débat d'orientation budgétaire bala ñuy dem ci commission débat d'orientation budgétaire yooyu yow député bi nga ñëw war ko fekke fekke woo ko ñu dem commission technique yow député bi nga war ko fekke fekke woo ko ñu pare dem commission finance yow député bi nga war ko fekke fekke woo ko ñu dem plénière nga sol sa costume wala sa yére bu rafet taxaw ci télé bi naan maanaam wax la neex te xamoo sax contenu bi. maanaam booy déglu ñuy liir rapport commission yi sax ak seeni intervention du sax bokk da ngay xam ne kii suivrul mais nit ñi comme dañu yaakaar ne député bi. Mhm. li muy liggéey plénière kese la am. député bi dina liggéey ñaari weer bay dugg ñetti weer soog a dugg plénière. Mhm. may wax ne député bon na législature bi bon na wala bonul si population yi ñoo ko war a wax. Mhm. te wax bi mu ngi war a feeñ. ci bés bu ñu demee le trente ñu xool ndax pro de participation bi dina wàññeeku xool ndax liste bi liste Benno Bokk Yaakaar biñ ne dafa bon. ndax dinañ ko éliraat am déet. am nañu am nañu dafa nekk ne. Mhm. tey maam jaara sama wax ak moom du sori ci euh, biir assemblée. Mhm. parce que peut-être su mét am na am na question yu mu fi wax. su hmm. maîtriser woon li nekk bi assemblée yëpp. Hmm. du ko du ko du ko débattre fii loolu moo tax. Euh, mënuma dugg si ci ci gàttal su ma la dégloo am ngeen bilan am na ñu ne campagne waruñu fi woon nekk di ko jaawaleeg présidentielle euh, bilan assemblée lañu war a def euh, da nga bëgg wax ni li ngeen di liggéey mu ngi traduire ci nekkinu nit ñi surtout ci gox yi gën a reculé. xam nga tey. Hmm. mooy li ma la wax dama ne la député bi li mu war a njëkk a def mooy balaa fin juin. moom député bi war na jëli. li nga xam ne moom la goxam gox ya mu fa mu dëkk. Mhm. la mu soxla. mooy département bañ ko investir wala loolu. bu ñu ñëwee débat orientation budgétaire war ko def bien navant le trente juin fa la ñuy joxee li nga xam ne moom la population yi mooy mooy soxlay population yi loolu la ñuy dellu tënki ko wat ca ministère ba. Mhm. indi ko. indi ko commission technique su ñëwee commission technique yow député bi li nga proposé woon nga ne ah man kat proposé woon naa leen benn tali benn tali ca mm-hmm. Saraya mm-hmm. mais gis naa ne bi ngeen ko indee en commission technique mm-hmm. loolu sottiwul ministre bi ne la lii nga ne ko déedéet su ma sañoon yéen a ngay def ca Koupentoum tali te Saraya moo ko gën a soxla ah. bu ñu delluwaatee en commission de finance mu nekk rectification defe naa ne liggéey mënta paase loolu de loi bu la ko nit defalee parce que sur le loyer. bu fekkee nit daf la ne wàññi naa loyer bi tegaat ay mesures d'accompagnement bu la nit génnee ci parce que ñun dañoo ragal yoon. loolu la ñu nasaraan yi rawee bu ma la luyee kër nga génn ma ci kër gi ñetti weer nga ne ma damay tabax man bu ma la gisee nga luy yeneen. nga luyee keneen yoon may na ma tey. Mhm. ma delluwaat. dénoncé loolu ñu toppaat waa ji mu jox la sa waaye da ngay dégg ñu ne la ñun de jaraluñu ko parce que da nga fiy dem police di dem ak ñëw lii mooy problème bu man su ma yoon li ma yoon jox dama koy jël ba mu jeex mais bu la yoon joxee nga ciy am ay demi mesure application ba du mën a sotti ma jël benn téléspectateur jërëjëf soxna euh, Ndeye Fatou Diouf euh, Benno Bokk Yaakaar asalaamaaleykum aleykum salaam sëñ bi yow la kan man la Mor Ndiaye di wootee Pikine Pikine waaw bismillah sëñ Ndiaye waa man ci affaire carte yi laay wax. waaw. parce que man tey dama gis ne Sénégal nit ñi dañuy am problème. sëñ Ndiaye bàyyil bàyyil télévision bi waxal waxal ci téléphone bi bàyyil wàññil son télé bi. waaw man non da doon expliquer ne. waaw <laughs> njaayeen bi. waa sëñ Ndiaye nit ñi waruñu woon euh, am problème boo xam ne. Hmm. da ngay bëgg récupérer sa carte mu pose problème. mais tey tey mais tey gis nañ problème boobu dafa sax. te mën naa ne état du Sénégal waroon na mën a jël ay matuwaayam. bon sëñ Ndiaye vraiment on est désolé y décalage waaw rapidement parce que waaw Barka laa bëgg a yeggal. waaw Barka je vais abuser de de de de mon, de mon droit <laughs> euh, dama bëggoon rek. Mhm. féliciter Soxna Diarra ak honorable député. Mhm. franchement ku ci nekk. yaa ngi wax li nga xam ni moo la yitteel ci yar ak teggin. Mhm. loolu lañu ñu demandé bu ñu waxuñu ni kenn bul wax. Mhm. amoo droit wax. waaye na nga wax <laughs> li nga xam ni mooy sa yitte. Mhm. dama jo bëgg joxe benn exemple député man dama yore woon benn projet bu ñuy wax projet agroforestier de Diourbel ma am fa problème de finance complément de financement mu bloqué. Mhm. xam nga nu ma def dama jël benn lettre. jox ko madame Aïda Mbodj à l'époque xam nga région zone am la woon. mais assemblée ñëw taxaw yéeg ci pupitre bi interpellé ministre des finances ni ko projet bi suñu projet la. dañu bëgg nga financer ko immédiatement mais gis nga une semaine après le problème était réglé. donc mën nañu itam di liggéey liggéey yu mel noonu. Mhm. zone ba ma dëkkoon man. Mhm. bi ñuy def lotissement bi. Mhm. dafa demoon ba mu kale am somme un milliard quatre cent bu ñu waroon génne defe naa ne keroog bi ma saisiré ministre des loolu mooy suñu rol xamal ko ne kat projet bi ñu indi xaalis bi manqué na foog nga dekay sa ko defe naa ne teguñu ci lu bari ministre des finances génne un milliard ba ñu dem 2017 bi mu génne quatre cent millions yi kon defe naa ne ñun loolu mooy suñu cër ci assemblée nationale mm. mais tabaxuñu ay tali tabaxuñu ay mbedd mm. defuñu ay robine mais ña koy def soo xoolee fan yee passé projet OLAC mm-hmm. préfet LAC mm-hmm. bu ñu xoolee ci télé bi gis nañu le contrôle parlementaire projet bi ñu lay voteel jox la ko. Mm-hmm. ñun bu ñu paree dinañ demaat ci terrain bi. Mm-hmm. ñuy suivre ñuy suivre médias yi dinañ gis ne dañuy dem ci terrain bi. topp la xool évolution projet bi fan la toll te defe naa ne. lii rôle député député baa nga fay def député bu bëggul def rôle am nag doomu mm-hmm. aadama liggéey yëpp la da ngay nekk ci service sax yow di liggéey nga gis sa moroom tëdd di nelaw du liggéey loolu mënuñu ko bañal kenn mais soo nee am na ñu liggéeyul. Hmm. mais jàppal ne am na ñuy liggéey di ko def correctement au niveau de l' assemblée nationale. très bien euh, mais euh, jàmm du doy naka la ñuy def ba réformer texte yi surtout règlement intérieur assemblée ba ngeen gën a doon pouvoir ni ñu koy waxee que ni pouvoir séparer la exécutif assemblée ak judiciaire barka est ce que laajul yëraat texte yi. waaw pour man chantier bu mag la. Hmm. parce que luy indi souvent assemblée bi di sooxe. ci ci njëlbeen bi la ci tànnin wi. il nañ ko wax rek. Euh, te yàlla yàlla tax. Mm-hmm. nu ñuy nu ñuy tànnee député yi Sénégal dafa dafa xaw doy waar. Euh, d'abord profilu député yi. dama am benn xarit bu am jot. mu jël quarante cinq xaw ma quarante sept listes yi. Mm-hmm. mu toog di def ay croisement di xool par catégorie socio-professionnelle euh, par sexe par et cetera par et mm-hmm. ñu ñu ñu bëgg a nekk. ci penc ndaw réew mi. ban profil lañ. mais dafa ci génnee ay ay statistiques yu yu doy dama lay jox quelques exemple yoo xam ne c'est caricatural. Uh-huh. am na ñoo xam ne fi ñu war a bind profession voyant lañ def. voyant seetkat mooy gisaatekat am am na ci liste yi. am ñoo xam ne dañoo bind profession immigré. Mm-hmm. mu ngi mu ngi ci ay liste c'est authentique. ok ci liste yi jàll na bàyyi nañ ko. bàyyi nañ ko mu jàll parce que. <laughs> je veux dire da nga ci gis façon profil bu nekk. Mhm. xëy na yooyu du du du règle bi ay. peut-être du obligation. waaw mais c'est c'est juste pour dire que. Mhm. Euh, su fekkee ñu ñuy tànn ñi. Mhm. amuñu profil bi. comment on peut s'attendre à avoir une assemblée de qualité. Euh, lu moom. mais intellectuel Sénégal tam kenn du ñoom. seen salon yi rek réflexion yëpp seen kër yi la yem. pour man ñoom dañu seexlu mbir dañu seexlu mbir mi. c'est ça le profil euh, du député xam nga dañuy dem. Euh, assemblée liggéeyam di gën a technique vie bi di gën a technique. Mhm. te ci ay enjeux yu sérieux lañ nar a dem. dëkk boo xam ne dafa changé paradigme dafa nar a nekk dëkk boo xam ne dafa am pétrole am mhm. gaz et cetera. Mhm. mu euh, soo xoolee code yi et cetera lu ñu war a voté dafa dafa bëri dafa am genre technicité boo xam ne. dafa am ci vie politique bi. te dañ ci day dañuy xuus rek muy gën a dem mais soo yóbbee ñoo xam ne jànguñu. amuñu xam-xam jàng nag man. du ma aw ma complexe naan jàng ci jàng tubaab rek la war a doon. Mhm. jàng mun na nekk alxuraan mun nañ nekk ay arabisant. mun na nekk sax koo xam ne immigré la woon dem wër àdduna parce que loolu aussi jàng la. Mhm. mais ku ñuy yóbbu assemblée na nekk ku am mhm. ñu wutale na ay assistant également. ñu ça permettra même ñu créer ay député yi dañoo xaw a tumuraanke ci wàllu assistance. boo ko méngaleeg ministre bi ñëw ak jaagar jaagar yi ay conseil fu ne effectivement Assane donc soo su fekkee ci affaire bi dafa soo sooxe. profil bu ñu tànnee. Mhm. suñ demee assemblée peut-être xoolal législature bi passé nii xëñ na suñu jëlee au grand maximum 10 pour cent wala 15 pour cent député la ci nit ñi xaw a ràññee seen liggéey. Mhm. même su doyee am na ñu doon liggéey dans l'ombre mhm. Sénégalais yi ñu ñu mën a jox seen tur soo doon def ay statistiques ñu ne la si tellement 10 députés ci législature yi passé ñu bëri mënuñu ko xanaa peut-être ñenn ñi nga xam ne ils se sont comportés négativement. ak quelques qui se sont comportés positivement. <laughs> Euh, loolu benn fan la. beneen bi mooy euh, rapport pouvoir exécutif ak euh, pouvoir euh, législatif bi. Mmh. nguur gi ak penc bi nguur gi lu mu concentré wu pouvoir bi dafa dafa xaw a jéggi dayoo ci mmh. Sénégal. Mmh. lu ñu war a corriger la. beneen bi mooy ragal naa ne législature bi ñii yàlla nar a teg fii suñ leen falee. premier soo seetloo bu baax première semaine bi. Mhm. muy ci majorité bi muy ci opposition bi. li nga nar a njëkk seetlu mooy une bataille bataille bi xam nga lan la. Mhm. ñan ñooy dem commission. kan mooy nekk président commission. parce que foofu salaire yi tolloowul ñaata litre carburant. Euh, kan mooy nekk questeur. Mhm. Euh, président wu assemblée bi kan lay doon kan la ñuy tàmm et cetera. donc du coup même ci. début législature bi. Mhm. ay bataille de positionnement ngay gis ay bataille de député yu bëri la moo leen intéressé dañ waxante dëgg am am am une chambre hôtel du kii. Mhm. dañ leen changé tel type de auto et cetera. <laughs> alors même si c'est caricatural mu am ñi nga xam ne dëgg la ñoom ñu ngi liggéey. ñu ngi mhm. ñu ngi ñu ngi dem ay commission ñu ngi fay fanaan. mais du du perception boobu. la majorité sénégalais am la perception qu'ils ont c'est une perception assez négative de l'Assemblée <laughs> et malheureusement am na ñoo ñu am na ñu doxee noonu ba ñu gis loolu très bien donc mooy doon euh, kàddu yu mujj ci yow soxna Diarra ñu bàyyi moo euh, mon colonel jeexal waxtaan bi pour ma compléter waaw damay wax ne ah. damay wax ne tey mm-hmm. damay jaaxle ci yan euh, tey ci ci ci ci intervention mm-hmm. yow député bi nga teg mm-hmm. député bi moo war a saytu budget ministère yi fiy jaar yëpp moom député bi. mu nekk assemblée national tey yow sénégalais bi nga xam ne yaa ngi toog. yow yaa ngay wax oto bi député bi yor. yaa ngay wax carburant wu député bi yaa ngay wax salaire wu député bi et pourtant ministre bi. mu nga toog estafam yëpp fees dell ñu jox ko courant jox ko kii carburant jox ko chauffeur jox ko lépp estaf bi ko war yëpp utal ko ay technicien tey. doo dégg mu ñu wax ca ministre ba te député ba toog ca assemblée national ba loolu. ministre ba di fonctionner. Mhm. ñëpp di ko fonctionner direction ba di ko fonctionner député ba moo koy wote nga ne député boobu talul dara lu dul oto. Mhm. carburant ak mhm. bot ban oto lañ may jëndal kon defe naa ne nit ki bu fekkente ne da nga ko jël say voix jox ko ne ko teewal ma ca pencum ndaw réew ma iñaan mën na caa bañ a topp xam nga lan mooy iñaan toog naan lan moo tax député bi di taamu tibb oto bi te ñu jël benn directeur jox ko ñetti oto ba ñeenti oto te député ba mooy saytu bi maintenant perception la wax nit ñi ni ñuy gisee assemblée ci réew mi quand même doy na waar souvent dama koy wax bu dee pas ak fan lañ ko war a jubbante waaw dama la moo ma ne la umpale warta warta wax naa ko ci njalbeen bi dama ne la ki bokk ci kër mhm. defut dara ca kër ga génn na kër ga dafa yàqu mhm. mais kooku tey lan la nit ñi mën a jàpp kër ga dafa yàqu. d'accord jërëjëf euh, soxna Diarra kàddu yi mujj yi. waaw xam nga sànq soxna si ndeysaan dafa defoon ne dama ne président mooy tabb député yi ma leeral. Mhm. mooy confectionner liste député yi laa wax. Mhm. te du yow yaa koy weddi. liste bi président mooy tëju ci bureau bind ko diw mooy dem fii diw mooy dem fii moom moo la yóbbu département bi nga nekk ak feneen ak keneen lañ nekk non moo koy defar bugguma ñu dugg si mm-hmm. ay polémique mm-hmm. bu ñu jógee ci loolu wax na sànq code de la presse dañu ñëw xawma lan code de la presse jiitu na seen judd ñoom seen seen législature bi waaw mm-hmm. euh, buñ mu ngi waxaat tamit ne que ci commission yi non man 2010 maa ngi woon ministère de la communication xam naa li ma lay wax El Hadj Assane léegi bàyyi ba ma eggalee yéen a ngi koy yàq dama bàyyi ba eggalee voilà non ñoom moom saw mu ñu njar rek ñu ñu defee ne pare na rek léegi euh, mu ngi wax sànq ne que euh, ñun sénégalais yi ñi nga xam ne ñoo leen yóbbu assemblée xamuñu li ñuy liggéey parce que ñun plénière la ñuy gis mais euh, El Hadj boo amee sa soxna jox ko sa dépense mu toggal la añ añ bi neexul mm-hmm. nga ne ko lii nga ma yàkkal neexul mu ne la boo xamoon li ma ci daj ba ma demee marché jën bi bi ma koy jënd xaw ma la la lan du loolu moo la intéressé yow li ngay lekk le produit fini moom lañ leen wax ni que li ngeen ñu servir baaxul mhm. l'impact de la douzième législature mhm. sur le peuple sénégalais il est négatif loolu lañ leen nekk di leen expliquer mhm. le loyer nee nga ku ñu génnee na nga dem euh, porter di plainte def nañ ko boo demee ñu defal la surface corrigée mënoo ci dara donc tuune la xamante la ñu wane. Hmm. ak bëggoon lu neex population bi il faut ñu arrêter di def loo xamante ne nii ay ay populisme. la ñu war a bàyyi. Hmm. ñu xool li jëmale kanam dëkk bi sànq Barka mi ngi wax ci niveau d'étude euh, kii yi mais pour man du mbirum niveau d'étude c'est au-delà de ça c'est une question de bonne foi. Hmm. nit ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo leen fal nañu am honnêteté di dem di liggéey ngir Sénégal tax nañu liggéey te dëkk bi tax. Sénégalais yi ñuy dem di waxtaan ak ñoom di leen wax liñ bëgg dégg di leen ak yooyu. ngir yàlla nañ leen respecté nañ leen jox cër moo tax may ñaan El Hadj Assane le 30 juillet incha allah. Mhm. na Sénégalais yëpp jëli ji seen i carte électeur mhm. teel a xëy teel a dem rang wi teel a voté ji na leen ko jaral benn yoon la sur 5 ans. Mhm. ñu dem voté man koo taxawu Sénégal incha allah bu ñu bëggee am assemblée bi ñu bëgg. <laughs> jërëjëf jërëjëf soxna Diarra ñu koy gërëm bu baax jeexalee colonel Moumar Gueye. waa euh, ci waxtaan wi rek lépp jëmu gi di benn ku ne da nga bëgg ne sa morom maa la gën a mën a téye ci réew mi. Euh, jërëjëf Alaaji Assane euh, dama bëggoon rek wax ni nañu fexe ba di téléviser. Mhm. travaux de commission yi. parce que plénière rek mooy génn à la télévision. Mhm, mhm. commission yi nañ koy wan askan yu ba xam lu fay xew. leneen li visite de terrain yi nga xam ni man gis naa ay député yu ko daan def. ku mel ni euh, Aliou Dia daawoon na ñëw projet agroforestier de Diourbel di ko visiter. bu ñëwee wax lii wax lale lee li nga xam ne nag moom laay jeexalee mooy waxaat rek li ma waxoon. Ah. di féliciter ñaari soxna yi toog. ndax ku ci nekk am ak fayda ak yar loolu laa doon xaar. tey jii su ma fi gisoon ay joxar benteeg ay sànnente xeer damay génn fii dem ñibbi. <laughs> man xaw ma loolu. li nga xam ne moom laay jeexale mooy képp koo xam ni kile yaa ngi wax kàddu yoo xam ni day merloo askan wi. Mm-hmm. wala muy tiital askan wi wala muy yee fitna noppil. Mm-hmm. ndax loo ca wax rek. dëgg la ñett yooyu bu ci am rek. musiba lay indi. ci réew mi. ñi nga xam ne nag ñoom lañu yaakaar ñuy kilifa diine yi ku ci ne na nga génne wax kàddu. ndax nag réew mi ñoom la ñu yaakaar. te it dégg naa toujours ñu naan réew mi sëñ Touba ngi fi Cheikh Sidi El Hadj Malick ngi fi. Hmm. jàmm rek a fi xew dëgg la gëm nañu lool de. waaye Irak gële ay ay kilifa nga fa ay ay ay wàllu yoo nga fa. Hmm. Syrie. ay kilifaa nga fa ay wàllu yoo nga fa te tàkk na kon nañu góorgóorlu seet ku nekk laaj li nga bëgg mhm. sàmmonte ak réew mi te ñëpp dox jàmm ak salaam. bu ko defee réew mi jëm ci kanam ñun ñëpp ñu nekk suñu jàmm ak salaam. jërëjëf colonel Momar Gueye ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant vraiment mbégte la woon ñu ànd ak yow ci waxtaan wi. ni ñu koy waxee saa na ci defar ak jubbanti gi ba ci ñun nii journaliste yi gars yeeg damm yàq gu métti gi ci wolof bi léeg-léeg souvent ñu jot texto yi jubbanti et puis di am nag oyof gi aussi di vraiment di rectifier ak bàyyi xel bu baax ndax xel du doy ci ci loo mën a gis nag réew mi tamit xam naa ñoom soxna jaara dañoo bëgg ñëw jàpp ci rek soxna nañ ne président sax léegi comme buy xaw a pant ñu bool bi na ñu ne nañ jàpp ci benn wet gi rek bu ko defee lépp baax barka <laughs> maa ngi lay gërëm ba maa ngi la woon ànd ak yow sama seexu màkk bi <laughs> barka du sonn nag mën na <laughs> dox Médine ba màkk mën na ko dox du sonn xaw ma dafa ab sàmm la woon fu ma daa daa moo ni nag bo bo jërë ngeen jëf soxna Diarra Cissé bu Manko Taxawu Sénégal soxna Ndeye Fatou Diouf bu benn bokk yaakaar colonel Moumar Gueye ci wàllu bindkat yi mu gis ne ñoom jóg jot na faaw ñu wax laata muy wees def barka ba ci wàllu analyse politique ku nekk la ko war ci taxawaay gi ci réew mi lépp ngir jàmm ndax ni ma koy waxee rek ñun comme poos yi demeewu ni daal jàmm nu jik ñu fanaan jàmm